Mamadou Goudiaby maa ngi lay nuyu. nuyu naa la bu baax soxna si. voilà Mamadou Goudiaby nga nekk secretaire général bu organisation général des travailleurs du Sénégal euh, nga wax ñu tuuti si euh, organisation bi nga xamante ni yow yaa ko euh, jiite exactement lan moo ko tax a jóg. waaw man maa jiite centrale syndicale OGTS. ni ma ko créé mooy pour taxaw liggéeykat yi. pour que lii ñu leen di def nii euh, lii ñu leen di def nii ñu bañ mooy l'embauchement mu nekk du travail san mu nekk du travail décent euh, les travailleurs ci biir kër yi ñu mën a gis seen bopp euh, c'est-à-dire la revalorisation des salaires le pouvoir d'achat et autres mais aussi ñu mën a xeex contre le, le, la flambée de des, des prix au niveau euh, des produits au Sénégal, c'est-à-dire euh, euh la cherté de la vie et tout ça. Tout ça, ça été pré euh, loolu yëpp dañ ko prévoiroon ci euh, pacte sociale bi nga xam ne centralu syndical Sénégal yëpp ñoo ko signé woon ak état ak jaatig yi ci ci ci biir entreprise yi comme quoi bu yëf yi chéré dañuy yokk salaire yi. Uh, ba état nangu woon na ne du yëf du cher bu fekkee ne dafa cher dafay méngale salaire yi ak seeraayu dund gi mais yooyu yëpp boo ko signé ba pare nga am euh, ay cap central 2016 ñu ne ñu am 10 pour cent dem pour defendre li nga xam ne ñun ñoo ko signé kañ nga mës a dégg central syndical yooyu programmé euh, euh, programme benn grève général wala protester wala ay marche pour protester ci seeraayu dund bi ak yooyu yëpp ay Guy Marius Sagna yooyu ngay dégg. ñooñu duñu central syndical donc ñooñu nga xam ne ñooñu la ñu désigné woon euh, bu ñu euh, réunion woon discuter ak yeneen centralu Sénégal yëpp ñu ne grève générale kon dund bi du chéré di kon état du def li ko neex te état signé na ne dund bi du cher Sénégal état signé na ne euh, liggéey bu bu baax mooy am Sénégal état signé na ne économie pat le le. le le patriotisme économique moom la ñuy dugal fii maanaam dundal société yi nga xam ne du am nañu problème euh, même étranger yi bu ñu ñëwee pour samp ay usines fii euh, usine Sénégal usine Sénégal yu ñuy créer fii ñooy dugg ci seen capital ñu mën a nekk ñoom ñaar ñoom du ñu jël majorité dañuy am ñii ñu am part d'action ñoom bu ñu amee cinquante pour cent euh, entreprise yu sénégalais yi am yeneen cinquante pour cent ñu tém ñu témboo mais mais ay entreprises yi étrangères yi ñooy ñëw daal c'est pas du du patriotisme économique mu loolu moo tax ma ma bëggoon ci sama programme bi mhm. bëgg taxawoo sénégalais yi nañ ma wote travailleurs sénégal nañu wote UDTS da nga xam ne moom moo ëmb coalition bi bi nga xam ne ñun foofu lañ bokk ah, pour que ñu mën a défendre travailleurs sénégal kon yéen tey ji centrale syndicale bi ngeen bëgg àndal gunge ko pour mu euh, gagner UDTS la waaw du gunge sax. waaw parce que alliance la créer mooy lii politique di tudd coalition. Mm. alliance boobu dafa ëmb sama centrale mooy OGTS ëmb centralu UDTS ëmb centralu UTS euh, ñun ñii ñett ñi bokkoon na ci joŋante bi 2009 2016 man moom soxna si. Uh, l'UDTS moo ñëwoon huitième OGTS moo ñëwoon neuvième UTS ñëwoon onzième ñooñ ñëpp boo leen ba dajalee bu fekkee ne dañuy ñun dañuy d'accord pour jiital kenn ki ñu ki ñu jiitu woon euh, ci ci ci joŋante 2016 moom la ñuy jiital loolaa tax ñu jiital UDTS léegi nag UDTS boobu ñun ci la ñuy yëngatu euh, selon les spécialités tey jii bu ñuy wax transport wax syndicat wa euh, enseignant wax ak feneen ak industrie alimentaire bu ñu amee tolof tolof wala négociation ci kaw a kaw a kaw man dinaa dem. waaw bu amee ay ci wàllu banque yi fi nga xam ne UTS Alioune Ndiaye moo fa moo fa gën a représenté. Hmm. mais moom mooy def bu ñu amee DP World ñu am. Uh, Bolloré ñu am uh, Port Sénégal ak feneen ak yeneen travailleurs yeneen enseignants yi ak feneen uh, UDTS mooy dem parce que Mariama Diallo secrétaire général bi en tout cas on gérera de sorte que ñi nekk ñi nekkoon ci kaw di sacrifier travailleurs yi dootuñu mën a sacrifier travailleurs hmm. parce que man su ma yéegee rek dinaa dénoncer. code d' ba nga xam ne dañ ko taxawal pour que ñu éliminer code du travail ñu jëmmal code d' ba nga xam ne léegi employeurs yi yëpp dootuñu embauché nit dañuy jël CDD jël journalier ba nga dee euh, jël euh, ay ay stagiaires ak ay intérimaires loolu nag musiba la ci travailleurs yi ñeenti centrale yooyu bu ñu demee ba Saly négocier loolu dañu d' accord ak état ak employeurs yi pour signer ko mu def lu dul signer. lu ak trahison bu rëy la ci travailleurs yi la donc ñun bu ñu gañee bu ñu amee dix pour cent la ñu njëkk a def mooy bind contesté ba pare ñëw ñëw ak yeneen centrale syndicale yi nga xam ne bokkuñu ci dix pour cent yi euh, pour ñu jàppala jàppala jàppalante ñu ñu ñu ñu ñu ñu def ay marche ñu manifester ñu contrecarrer euh, ce projet ki boo xam ne day rey travailleurs Euh, Mamadou bi euh, euh, comment dirais-je naka ngeen fas ne kon def pour mën a bokk si ñi nga xam ne ñooy gagner élection de représentativité syndicale yi. mooy d'abord information bi may joxee nii nañu seet travailleurs yi ñooy seet bu fekkee ne ñoom dañu bëgg ku leen sacrifier ñu bañ a wotee ñeneen ñu ñu fekk ci ñeent ñooñu nga xam ne ñoo fi daan nekk ñoom xam nañ leen parce que kenn ku nekk sa avenir ngay sàmm Euh, te tey jii euh, liggéeykat Sénégal ak sonn bu ñu sonn yëpp mosuñoo dégg euh, yeneen ñeent centrale yi nga xam ne ñoom lañu joxoon dix cent yi en deux mille ñu yuuxu leen wala ñu def marche wala ñu def grève générale ñoom wax nañu état ne ko boo ma defalee defalelee li nga xam ne mooy travail bu baax bi mooy travail décent dundin bi du cher travailleurs yi dinañ am avancement augmentation dina am boo ma ko defalee yëpp man dinaa toog cinquante du ma dem grève ñoom toog nañu cinquante demuñu grève toog nañu huit ans demuñu grève mais boo toogee cinquante demuloo grève nga gis ne état mu ngi lay ñàkkal fuloo ñàkkal sol la travailleurs yi sonn nañu dund gi seer na mais yow da nga da nga ne état man respecté naa sama kaddu grève ma pendant cinq ans léegi nag ci ñetti at yi wala wala ci fu ne nii boo réglé wulee li nekkoon ci li nga xa li nga xam ne xaatim nga ko mu ñun ñu xaatim ko dañuy dem grève générale nga woo sa njaboot yëpp sa njaboot mooy ñan yow am yow yaa am dix pour cent mais boo woowee centrale syndicale yi ci def yëpp ci Sénégal nga ne leen ñun li ñu signé woon ñun yëpp centrale yi ñun ñu demoon ñu demoon pour arbitrer ko pour surveiller ko pour contrôler ko ndax état dina ko appliquer état appliqué wu ko lañ lan la ñuy def ñu ne la kon nañu wàcc mbedd mi euh, ñu def li war a def li syndicat war a def pour que dund bi wàññeeku ak lépp wàññeeku kon mais loolu yëpp déguloo ko kon looloo tax euh, ñun ci sensibilisation bu mel nii la ñu mën a def pour que travailleurs Sénégal yëpp voteel ko voilà comme que en même temps coiffé euh, nga aussi liggéeykatu Dakar Dem Dikki est-ce que situation bi foofu changer na wala ba léegi ñu ngi ci seen jafe-jafe yi Mamadou Goudiaby ñu ngi ci seen jafe parce que xam ngeen ne Dakar Dem amatul sax ay car te car yi nga xam ne lu tax amuñu ko parce que ñaari at yu ne bu ñu commandee ay car day paan parce que amuñu pièce détachée gars yi bu ñu ñëwee indi seen pièce détachée bu jeexee dootuñu amuñu fii ci Sénégal pièce détachée yu méngoo ak yooyu kon lu ñu ko mën a defar loolu a tax man si sama projet ma bind mémorandum en deux mille dix en deux mille vingt et un ma dépo en 2020 ma déposé ko euh, auprès de la présidence de la République de la primature et du ministère des finances ma ne leen ñun projet bi bu ngeen bëggee Dakar Dem Dikk bañ a ñàkkati kaar da eh, eh, eh, commande bu bii na doon commande bu mujj mille kaar ngeen commandé li koy accompagner mooy lan mooy Iveco mi gagné marché bi na ñëw Sénégal samp benn usine de montage autobus ñun dinañ monter auto ay autobus yu gudd gudd gudd yu ñaari gabon yi wagon wagon yi kon ñu manqué ay car ba pare pièces détachées yi nga xam ne ñooy dem ci car yooyu fii lañ koy defaree buñ ko defaree car dootu car de Dakar de Dakar du di dootul ñàkk car ba pare bu fekkee ne car yi ñuy indi euh, sans tombé na en panne maanaam panne nañu moo nga commandé ci usine bi deux cent car cent yooyu nga jël ko fat car yi panne mais cent yi ci def nga jaay ko Guinée Bissau jaay ko Cap Vert jaay ko Mauritanie jaay ko feneen ak feneen ñu ñaxanal euh, koom-koom Dakar dem di bon beneen bi mooy euh, accident yi bëri na ci Sénégal euh, puisque bëri na ci Sénégal gis ngeen ne Dakar Dem Dikk ak ni muy def Sénégal Dem Dikk yëpp mu ngi voyagé macha allah macha allah mosu leen a dégg jëyee ci accident. Euh, mais kon dañu de créer benn centre de formation boo xam ne képp ku bëgg a dawal horaire képp ku bëgg daal dawal car touristique képp ku bëgg a dawal car dawal car bu gudd ak transport en masse da ñëw am foofu def ci centre de formation boobu ba nga am attestation. nga adapté wu nga mën a dawal foofu loolu dina yaxanal koom-koom mais dina wàññi euh, accident yi beneen bi mooy euh, mille bis bu ñëwee du ñu dem ren euh, yarax mhm. pour dem visite technique léegi nag ñu ne nañu usine bi la ko benn centre de visite technique privé boo xam ne Dakar Dem Dikk moo fay majoritaire état jël vingt pour cent UV ko jël vingt pour cent Dakar Dem Dikk jël soixante pour cent loolu dina permettre Euh, ñun ñu ñu def fa technique yëpp mais ñu yóbbu fo aussi oto oto aftu yóbbu fo oto oto touristique yëpp loolu dana yàqanal koom-koom Dakar Dem Dikk euh, beneen bu mujj bi mooy dañu ne dañuy créer un centre international centre national de réparation des bus centre boo xam ne bus yëpp oto yëpp lañ fay defar boo xam ne techniciens yu xereñ yu Dakar Dem Dikk ñoo fay ñoo fay nekk ak ñeneen ñi ñu war a recruter bu ñu ñëwee état bépp oto bu mu am bu paanee na indi ko Dakar Dem Dikk ñu facturer ko mu fay ñu ñu yaxanal koom-koom Dakar Dem Dikk ñun projet yooyu la am bu mujj bi mooy man da am na ab ji travailleurs yi bu ñu xooxee ma dem xeexal leen dañu am ay rappel euh, euh, prévoir naa leen ay rappel cent mille euh, minimum cent mille francs bu ñu fi jógee ci élection yi dinaa dem def réclamation bi ci Jëkk ak Teranga ñu jox leen kenn ku nekk li ñu la war a rappel mm-hmm. bu ñu bañee ma jàkkaarloo ak ñoom dem inspection du travail jàkkaarloo ak ñoom Euh, dernière question Mamadou Goudiaby maanaam si jalgati gi ñuy jalgati àq ak yelleefu liggéeykat yi euh, fii si Sénégal d'une manière général loo si mën a wax. d'abord code du travail dafa il faut du travail décent maanaam bu ñu jëlee nit na yëg ne mu ngi liggéey bu wàccee fin du mois salaire mu mën a yóbbu mu dem euh, mu mu mu dund ak njabootam mais mu garder dara mu garder dara sax mu ne économie maanaam salaire yu baax mais xool leen augmentation cinq pour cent huit huit euh, pour cent dix pour cent mais cinq mille francs la ci salaire yu ndaw yi cinq mille francs boo jëlee impôt ci cinq mille francs yi mu dese la peut-être euh, trois mille cinq cent wala quatre mille loolu loolu loolu loolu loolu c'est pas du travail décent or état ci boppam man su ma yëgee su ma yëgee waa ASP ASP état ci jëpp ci boppam moo njëkk a violer euh, le travail décent parce que boo jëlee ku ku mel ni ASP nga leen di fay cent mille francs léegi sax tane na cent mille francs mais bu njëkk cinq mille nga ne ay volontaire lañu mais le travail volontaire n'existe pas dans le dans le code du travail ça n'existe pas léegi nag l'état yow nga créé sa sa sa sa sa règlement ba pare nga violé ko nga jël ay nit boo jox cent mille francs wala quatre-vingt mille francs mu dem këram bu bu fayee luwaas lan moo koy dese donc le travail de ça man su ma duggee li may njëkkee euh, euh, euh, défendre mooy le volontariat na deñ na deñ ci Sénégal nañu créer des travail décent les ASP nañu leen recruter dans le dans la service de police ou de la gendarmerie parce que wane nañ seen preuve au niveau au niveau du volontariat wane nañ seen preuve nañ leen jël foofu waa ASP yëpp lay défendre pour ñu nekk ay policiers wala ay ay ay gendarme euh, beneen bi mooy daa euh, dinaa xeex pour que euh, le le kii la le code du travail ñu respecté ko waaw ñu respecté ko bu baax travailleurs am afia travailleurs yi am le pouvoir d'achat euh, ñu méngale salaire yi chaque fois bu amee cherté de la bi maanaam dundin bi bu chéré ñu yëkk ci salaire yi damu mu méngoo ak man-man travailleurs yi mhm. Mamadou bi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj waa merci beaucoup naa war na na si kii naa leen bu baax a baax. may fàttali ne Mamadou Goudiaby yow yaay secretaire général. général de l'OGTS. OGT centrale syndicale. de l'organisation générale euh, unitaire. bi war voter euh, avec le le bulletin de vote UDTS. merci beaucoup Mamadou Goudiaby. merci beaucoup Mamadou Goudiaby. merci.